ku nekk war na respecteel moromam la mu gëm te bañ di agresser moromam tout le temps maa nekk ci dëgg yow newoo ci dëgg ndax nag mbir yi randul ma toog kese laa fi gis randul ma toog lépp luñ daan bañal sunu sëriñ si ñu ngi koy nangul kon xanaa docteur sëriñ Touba dafa woote bis ne màggal ne nañ ko santale yàlla moom bisu sant yàlla la woote Cheikh Al Hadj Malick maam Abdoulaye mag ñu fi woon woote bis ne dañuy màggal juddug yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bi sallallahu alayhi wa tey ñu gis njabootu Cheikh naa docteur woote bis woote luñ ko yàlla nee nañ pour sant ko wala wooteel ko yenent bi ngir màggal ko waaye dañoo ñëw pour teggi ay tuuma yuñ teg ci Cheikh naa docteur Cheikh naa docteur jël kàddu di setal boppam di wane ne kat. nit ñi ñoo ko jaxaseeku nit ci mbindam yi mu bindoon ak yu ni mel waaw kañ la wooteeb Serigne Touba doon bidaa wooteeb Cheikh Al Hadj doon bidaa te ku nekk ci ñoom kii wooteel yàlla ngir ñu sant ko kii wooteel yenent bi sallallahu alayhi ngir ñu màggal ko yooyu yëpp di bidaa tey bii moom fan lay dugg wooteeb tey bi fan lay dugg dañuy nangu ne yële bidaa la bii ñu boole ko ci bidaa yi mooy la ma waxoon ca wal fajiri suñ diineek jamono mooy ñun ñëpp di dund ci bidaa walla ñu nangu ne diine de buntu woote xatalu ko daf ko ubbi mu ne ngàpp li muy tere daal mooy ñu woote def lu neexul yàlla waaye fekk ñu ngi woote di def lu neex yàlla diine amu ca lu muy tere bu ñu nangewu loolu gannaaw bi ñu jógee ci grand théâtre tey bi danañ war a respecteel ëllëg maxtaar Sarr ne dama bëgg a woote bis wooteel ko maam Cheikhul Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh ne damay fàttali ko Cheikhul Hadj Abdoul Aziz waxtaanee ay mayam waxtaanee liggéeyam bis boobu ñu nangul ma ko ci turu diine bañ ma ko bañ maa taxe nitu bi da ëllëg ñu may sëriñ kër Mbuub ne dafa bëgg a woote bisu sëriñ Abdou Lahad Mbàkke waxtaanee jaar-jaaram waxtaanee liggéeyam ñu nangul ko ko bañ ko taxe nitu bi da pour jàmm am boo gisee fan yi yëpp defuma benn publication ci bis bi waxuma ci dara dama doon ñaan yàlla di ngéeju bisu tey bi am ndax yàlla dana am lu bari lu mu leeral dana am tamit lu bari lu mu teggi ci ay tuuma li muy leeral bokk na ci mooy ñu doon wax ne yàllaa kub yenentam képp ñun amuñu keneen ak affaire yàllaa kub yenentam ñooñu tey leer la ne yàllaa kub yenentam am na kuñ koy wutee ci moom mooy Cheikhana docteur comme ni nga xamee ne nun yàllaa ko yonentam fii may waxee ak maa ngi fii ci Fès ci dëkku Cheikhana Ahmed yi ci moom la sama yoon jaar pour di ko royee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci tarixam ma def ko sama naafila di ci wut yokk ci wàllu yàlla léegi naka nga may bañalee man ma mën a royee yonent bi Seydina Cheikh di yow yow mi ma bañal loolu tey nga wax ma ne am nga cheikh man nanguloo ma cheikhana Ahmad Tidiane waaye yow nañ la nangul force cheikhana docteur Ahmad Lo loolu noonu le naka la ko xel ma ne nangoo gis naa ci daje bi ko tudd Umar Sall Umar Sall Umar Sall mi nga xam ne nee naa feek tuubalul cheikhana Ahmad Tidiane ñëpp dégg ko lu mu julli lu mu woor lu mu dem màkk lu mu daawa dañ koy verser ci compte Cheikh Ahmad Tidiane lan moo tax taalibe Ahmed Lo bii ma gis mu toog ci ginnaawam tey muy Omar Sall moo toog ñëpp di ko dégg ñu enregistré ko audio yi tasaaroo mu ne Cheikh Ahmed Tidiane chrétien la woon Cheikh Ahmed Tidiane mu ne chrétien la woon te loolu noonu le boobu ba léegi indiwu ci firnde boobu ba léegi tuubu ko boobu ba léegi ñi nga xam ne ñoo bokk ak moom sëriñ bii nga xam ne mooy Cheikhna docteur Ahmed Lo kenn ci ñoom taxawul def radd ne lii nga xam ne moom la Omar Sall wax du dégg waaw léegi naka la Omar Sall mën a ameeb sëriñ gëmloo ñu ci ay xutbaam yàgg naa déglu waxtaanam tontu naa ko lu baree bari yàgg naa déglu waxtaanam mu gëmloo ñu ne yàlla toppaloowu nu bàyyu kenn wala maamu kenn di dem ci seeni tool di leen wuyi bu ñu wootee loolu noonu la mbuumu njaam la goo xam ne dañ ko war a dog yàllaa ko bi yonentam képp lañu war a topp topp même Omar Sall moom ma déggoon mu ne ma waruñoo topp kenn ku yàllaa ko bi yonentam di wuyu seen wooteeg dem seeni tool ki ñu doon bañal ñu dem toolu Serigne Saliou Mbacke ca Xelkom di ñu bañal ñu dem toolu Cheikh El Hadj Abdoul Aziz ca Jaksaaw kooku tey moo ñëw ci toolu Ahmad ci Grand Théâtre mu woote mu wuy si ko te moo ne woon wuy ji yàllaa ko yeneentam wala liggéeyal ko loolu dong lañu war a def alquran ak sunna kepp moo tax sant yàlla gi mooy ndege daña bañoon sëriñ ñoo am seex yi c'est important ña bañoon sëriñ moo ñoo am seex yi loolu dana jur benn dal ak équilibre ak ndaw ñi nga xam ne nii xamuñu li xew dañuy tëñëx tëñëxi rek bu ñu déggee alxuraan ak sunna yàlla yàlla yenent bi lañu ñu toppaloo point pour ñoom ñun ñi nga xam ne dañoo gëm mag ñi di topp seeni njàngale bu ñu wootee ñu wuy ji leen ñun loolu ñu gëm noonu ay caaxaan la dañ ko war a bàyyi léegi ki la gëm loolu yow ba nga gëm ko ni la da nga war a bàyyi Tuubaa nga ngay dem ndax bu njëkk dañ ñu daan taxé sax di indi ay laata xadiisu laa yi rihaal yeneen bi ne na kenn waru la euh, war oto wala nga yéeg gëlëm di dem lu dul ci ñetti jàkk yi maanaam loolu lañ daan layaloo ci dem màggal ak gàmmu xaraamal déplacé wu uniquement ngir dem ci bërëb boo xam ne pour dem fa ñaan wala jaamu yàlla ñu araamal ko léegi tey ci biir daje bi dégg naa mbokk mu baax <laughs> maa ngi koy nuyu euh, boroom xam-xam la Mm, tur bi laay fàtteeti moo yoroon defe naa microcentral bi bi mu nuyu ñu teew euh, Cheikh Ismaïl Cheikh Ismaïl ku ñu respecté bo respecté la borom xam-xam la te li tax ñu respecté ko du dara lu dul gëm na lim gëm mosuma ko dégg mu offensé kenn ñu mel noonu bu fekkoon ñoom dong ñoom ñoo nekk ci biir mbir yi mën nañ noppalu ci yenn tontuwante yi jàll ci yeneen mais yi ñuul ci soow mi moo tax dégg naa ko bi mu wax moom Cheikh Ismaïl wane ne am nañu jugee ko ba Mali ba Gàmbi ngir yàlla ak woote say xanaa docteur bi <laughs> ni nga xamee ne màggal am na ñuy jugee ko Mali Gàmbi fépp ci Afrique yemuñ rek sax jugee Mali Gàmbi waaye dañuy jugee États-Unis jugee ko Europe ngir wooteeb seriñ Touba bu gàmmu jotee it fu ne la waaye di bàyyee ko ci àdduna bi ngir wooteeb Alaaji Malik waa démb loolu dafa bonoon tey mu baax alhamdulilah bi mu baaxee tey kon ëllëg dootul bonati njëriñ li mooy suivi bi liy ñëw ci kanam jàmm ji nga xam ne tey Cheikhana docteur nee na moom la woote defe naa wooteeb tey bi war na tax jàmm am ci kanam ba ku mel ni Omar Sall dootuñ ko déggati gàmmu jot mu taxaw ñu naan ñu yenent bi mosu koo def saxaaba yi masuñ koo def sëriñam bi tamit dootuñ ko déggati gàmm jot mu naan ñu yenent bi mosu koo def saxaaba yi mosuñ ko def bu ñu kenn fon